Guy Marius Sagna dafa jógee fii dañ ko saaga maa ko saaga te maa kenn maa ko assumé du yéen man la ma fii te maa kenn maa ko assumé jarul wax yéen du yéen man la te maa ko assumé man lu ma wax fi assemblée maa ko assumé ñun ay góor lañu dañoo ñëw fii président Macky Sall investir ñu ñëw assemblée nationale dañuy défendre nag régime duñ défendre Antoine dañuy défendre régime président Macky Sall parce que ci la ñu bokk. régime boobu moo ñu fii dañ koy défendre ba keroog ñu fi jóge ñoom ñu mën a nekk opposant di défendre koo xamante ni daa yàlla mu génn di yàkkataan ay nit ñun ñu war a défendre na suñu Macky Sall fii amul ku fii ragal ku ne dafa foo jógee ba ñëw fii nañu respecté woon bi nañu wax ci débat yi nañu wax ci li ñu fi andi li nga xamante ni moo tax Sénégal otiloo ñu budget bi pour wax mën a liggéey Sénégal may sant monsieur le directeur général bu Petersen Adama jàll di sant sama frère Pape Demba Biteye di sant Ibrahima Ndiaye ñi nga xam tey ñoom ñëpp ñoo bokk lampadaire solaire yi commune yu bëri jot nañ ci mais dañu bëgg monsieur le ministre de ngeen yokk entreprise yi parce que benn entreprise rek bu bëgg ko def cinq cent cinquante sept communes ci Sénégal dafay métti tijji leen marché yi ngeen yokk appel d'offres yi ndax mu gaaw parce que lampadaire yi amul benn commune bu ko jot di santoo ci yàlla ñun nag électrification bi DG dema Demba Biteye ñëwee léegi Sine Saloum da cee yàlla sooy wax waxal Casamance ba nga maîtriser mais ñun ay maire lañu yow ay collectivité locale xam li xew bu baax man bi may ñëw Toubacouta en 2009 j'étais à presque six villages actuellement sur 52 villages maa ngi ci 47 villages mu defal ma quatre wala cinq villages kon merci Sénélec merci directeur général parce que PIDC piment ñëpp a ngi ci électrification bi ak américain yi xam ne dañu war a ñëw parce que nag ñun suñuy wax li ñuy wax dañ ko maîtriser parce que dañ koo dund parce que bu nga ñëw wax fii pour bu ñu déglu la fii ne nangam fii kenn ñëwu fi saaga dañ fi ñëw nekk ay acteur développement nekk ay député di ñëw défendre suñuy gox mais su fekkee da am nag loo xam ne da nga koy rax ci li wax ñu tontu la jërë ngeen jëf wasalaam maa ko saaga te maa ko assuré